nappkat yi nekk ci diwaanu Mbour kontaan nañu lool ginnaaw bi ñu gisee publication bato de pêche waaye tamit renouvellement licence yi nga xamante ni daf leen di mën a dimbale ci seen wàllum liggéey bu baax. ñu ngi dalal li nga xamante ni mooy nguur gu bees gi fi xew gi fi gi fi nekk euh, leen naan euh, euh, di leen sant bu baax si li nga xamante ni mooy effort yu ñu jot a def. ndax gis nañ ni euh, bato yi xaw nañoo euh, xaw a wàññeeku tuuti si li nga xamante ne mooy lu jëm si wàllu euh, dégâts matériels rek yu ni mel. gis nañ tamit def nañ effort permis yi nga xamante ne moom lañu zélé woon ñu tamit defaat si effort ba fu mu toll nii mool yi ñu ngi leen di sensibiliser pour ñu dem dagg ji li nga xamante ne moom mooy permis yi. yi la nappkat nag ñoom nee nañu état war na sax gën a mën a daal di autoriser di fële fele yi nga xamante ni ñoom la ñuy nappee ndax kat loolu nekkul luy yàq géej gi. si loi bi ñuy dégg sax ne euh, war nañ koo càmbaraat war nañ ko réviser waat euh, code de la pêche bi moo tax daal dañuy ñaan état bi ñi nga xamante ne ñoo koy càmbar ñu fexe valider ko. dugal ko si li nga xamante ne moom mooy euh, code de la presse mu mu si si dëkk yëpp képp koo xam ne nag bëgg na koo liggéey mu liggéey ku ko bëggul liggéey nag moo xam ne moom moo bëggul liggéey ndax ñëpp mënuñoo liggéeyandoo si benn métier rek nga xamante ne 80 euh, pour cent wala 90 pour cent euh, si presse bi moom moo koy servir si nga xamante ne mooy Sénégal ndaxte doon na mbir boo xamante ne yaatu na yaatu nga xamante ne su fi newul woon musibaam ndaxte doon na loo xamante ne dafa gën a sukkaliwaat li nga xamante ne mooy géej gi ñu gën a sukkaliwaat li nga xamante ne moom mooy euh, euh, euh, askan gi di leen jox li nga xamante ne mooy jën bi nga xamante ne moom lañ soxla dëgg dëgg dëgg ndax fele-fele li muy li muy jàpp wala wala li muy li muy napp doon loo xamante ne lu ñuy sànni la wala lu ñuy laq wala yu mel luy askan di dundee moom lay indi yi leen nappkat nag ñoom ñuy wax ni mbaal yooyu di fele-fele sax mën nañ ko di jëfandikoo ndax kat bokk na ci li respecte yi di norme yi ak règlement yu ñuy nappee